سيدي يا مجتبى يا ذا العلا صلى عليك من دعا على يا سيدي يا مجتبى يا ذا العلا صلى عليك من دعا على حسن الأبرار di tooli ba Bassirou Mbacke moom sëriñ Abdou Khadre yi nga xam ne moo nekkee ci biir Jolof sëriñ bi nag woote fii ruuj maanaam waajal li nga xam ne moo jëm ci nawetu atum 2024 bi ñu war ko doox ci samedi dëppoog le 17 février 2024 sëriñ Bassirou Mbacke moom sëriñ Abdou Khadre nag teel naa ñëw ngir waajal liggéey boobu lee anni wajadali ilayka bin nadar ya sayyidi ya muntaqa ya وكلما لا زيد سمد المسلما مع سلام بجميع الآل وثبك الدرر والآلي يا سيدي يا مقتبى يا من سرى صلى عليك من دعاك للسرى يا سيدي يا مقتبى يا من سرى صلى عليك من دعاك للسرى أزكى صلاتي تجود بذبر بأن أجاهدك من غير سبر مع سلام بجميع الآل وثاب من غدا لهم مالي moo tax ci aljuma ji euh, dëppoog le 16 février bi tàkkusaan euh, jotee rek sëriñ bi génn na ci daaram ji nga xam ne moo nekkee fii ci Hisnul Abraar ànd ak yeneen i mbokki taalibe ak ay kilifa ngir dem nemmeeku mboolem dal yi nga xamante ni ñoom ñoo nekk ci tool yi sëriñ bi nag dem na ci dal yi saafonte ak ñoom dalal leen waaye rafetluwaat bu baax a baax nii nga xam ne noonu lañ ñëwee ngir fas yéene liggéey liggéey bi nga xam ne moom la woote liggéey bi nag fas nañ ko yéene jëfee ni nga xamante ni noonu la ko sëriñ bi bëggee tutiibu lii tubaaya بجميع آلك والأصحاب ربك سميع ألقى صلاتني تجود بهداك مع سلام يسقر عداك يا خير كل والد وما ولد صلى عليك من دعا لا أن ولد مسلما مع الخيار العبدي كما لخيري أذال وبدي بقيا رجمي إلى الجنان وبك صفى أبدا جناني يا خير محسن لخير أمة صلى عليك وكفاك الغمة رب كريم نافع قد جلى وقدرك العظيم قد أجلى وسلم عليك وغاددي بلال وسب والاد مددي يا ملدتي غغت القمر صلى عليك من بقبض امر مسلما عليك بالإكرام fil aali wa sabi bilan tiraami man di ka jumlatatuna bi xabara wa kullama alayhi anni kaffara yaa mutaba yaa mundaqa yaa mujtaba salla alayka man hadaaka wajtaba ولسوانا وسقاء كف وما يحرم ارتقاء